da di muñ ndax métti na bàyyi juddee foofu la naqar yem waaw waaye nag muñ rek ngeen di gàttandoo loolu ak jéem jéem a nekk benn dimbalante gune yi topp mag ñi rek mu ne ma Moustapha ma ne ko labbayk mu ne ma koo dégg mu ne sama yaakaar tas na da nga koo tegutoon ci yàlla yàlla kenn du ko yaakaar mu tas sum ah ma ne sama yaakaar tas na tegoo koon ci yàlla ci mbindeef nga ko tegoon moo tax muy tas